matinale Allô Sénégal ñu ngi ci partie bi nga xamante ni war nañu dalal suñu ay gan mais Grégoire daal dinañ ñëw rejoindre ñu ci plateau bi Grégoire maa ngi lay nuyu. feneen bu baax Aïcha di la ziaraat ci suba si jox la sa wàccuwaay. Hmm, xanaa Aminata Bakayoko moo la. ah tey damaa yeewu rek métti daal. <laughs> da ngaa métti nii ci àjjuma ji. <laughs> ñàkk nelaw day waral ne. <laughs> nuyu naa la bu baax a baax nuyu Pape Malick ah, nuyu sénégalais yi ñu seetaan ak suñuy gan Aïcha. Ah, dalal ak jàmm suñu ay gan agsi nañu ah, donc tey nag mbokk yi am nañu mbégte dalal ki nga xamante ni moo di Boubacar Gaye nekk président fédération sénégalaise de triathlon ñu ngi lay nuyu président c'est un plaisir ñu lay dalal ci plateau bi. si sama naataango bi ma toogal dalal ak euh, jàmm sa naataango bi nag euh, mooy jamaïcain moom nag nekk promoteur euh, de lutte ñu ngi lay nuyu am nañu mbégte di la dalal ci plateau bi Aïcha maa ngi lay fay di la ziar bu baax di la jox sa wàccuwaay di nuyu képp ku ñu suivre ci sa nuyu sama pap bi ma jàndal di nuyu Grégoire ak Pape Malick mm-hmm. di nuyu waa senegal yëpp di nuyu kilifa di kilifa aaday nekk ci réew mi yëpp dal leen ak jàmm maa ngi koy wax sànq tous les vendredis dañuy waxtaane nag euh, li nga xamante nii moo di sport alors président dañuy tàmbali ak yow triathlon nekk benn discipline bu nga xamante ni dafa réunir natation euh, course ak vélo actuellement nag ñu ngi ci fin de saison bi 2022 2023 tey ban bilan ngay tiré ci saison bi. Euh, merci beaucoup je li ma yaakaar bilan bi daal ren. mun def nañu cinquante wala soixante pour cent ci programme bi nga xam ni moom lañ tëraloon contrairement ak at yi weesu parce que liñ mébétoon ci compétition nationale yi defuñu lépp nuñ ko bëggee woon compétition internationale yi aussi demul lépp nuñ ko bëggee woon bon parce que ku nekk xam na euh, jafe-jafe yi nga xam ni enfin situation bi sport vivre ci année bi ñu weesu toog nañu fi ay weer yoo xam ni amuñu ministre des sports loolu defe naa dafay raje ñëpp ko yëg sport yëpp ko yëg en tout cas surtout ñun ñu ndaw ñi fédération yi ndaw yi comme on mais euh, ci li ma mën a tënk mooy def am nañu ay journée championnat suñu championnat def nañ ko en changeant de stratégie euh, compétition internationale benn yoon rek la ñu génn ren muy Égypte bëggoon nañ dem Maroc. Mhm. comme d'habitude waroon nañ dem Tunisie mais situation permettre ñu ko woon. ban situation. je dire euh, financière parce que xam nga booy tukki il faut ñoom ñun. Mhm. ndimbalu état bi ci mhm. ministère des sports euh, te toll na ay jamono dafa mel ni loolu xawoon na jafe. on a fait avec les mains du bord dans cette euh, ci ren li ñu gën a sukkandiku mooy championnat national ak détection ak préparation surtout jeux olympiques yi xam ni de la jeunesse yi Sénégal jëm et nous avons mis l'accent véritablement sur cette catégorie la des plusieurs journées ont été organisées de direction et de camp d'entraînement mm-hmm. et clôture bi ñuy def samedi aussi xale yooyu léegi lépp lu ñuy def rek danañ ci dugal ba ci coupe d'Afrique bi ñu def ren il un camp d'entraînement international bu ñu def ak xale yi ah et puis parce que détection bi aussi ça nous intéresse tous Sénégal ci géologie la jëm innovation yi tout bëri na mais par rapport ak sa bilan ba léegi y a des facteurs qui vous ont bloqué surtout côté finance. Euh, tey ces financement la tey sur le plan organisationnel bu ngeen di dem seen ressources fan lay jógee ndax yéenay demal seen bopp wala bokk. bu ñuy dem euh, bu ñuy dem bitim réew compétition waaw. non non bu ñuy dem bitim réew billet euh, billet d'avion yi ministère moo ñu ko jox. Mhm. mais li ci des ñun fédération moo koy jël ah lu ci ëpp bokk am na ci am na dana am déplacement yoo xam ni. Mhm. suñu partenaires yi au niveau de la fédération internationale. wala nous avons am nañ ay convention ak fédération française les fédérations francophones dañuy dimbale ah bon aussi am nañu ay mhm. ay partenaires yu nekk Sénégal ñoo xam ni dañuy jàppale mhm. euh, chaque fois qu'on est sponsoring la mais c'est plutôt un, un accompagnement parce que euh, véritablement xam nga tey maa ngi leen di gërëm bu baax mais ñun euh, ñoo ñëwee fii. mais xam nga lii yeneen sport yi am kii ngeen nga wax làmb xamul nu muy demee xamul xamuma mais xam naa télévision lu am solo la. ci sport. lii làmb bi am ci télévision football bi am ko la yenn yi lu am ko donc xam nga sponsor bu lay jàppale. Euh, da nga ciy wax day fekk mu seq ko yow gëm sport. bëgg am accompagner sport bi rek. Mm. mais li nga xam ne en retour. mën na ko xaar c'est peut à long terme mais dans tous les cas am nañ ay partenaires kam yoo xam ni euh, ñu ngi leen di gërëm c'est l'occasion su ko jamono bi su ko su su ko tëdd tudd leen. d'accord <laughs> mayewu ko nag. bon mais aussi c'est de la médias la politique donc il faut des champions su fekkee bon ba ngeen bëgg présence ci médias yi je sais que bon euh, les journalistes ak ñi nekk ci presse bi yëpp seen devoir moom mooy sport yi nga xamante ne sport mineur lañ. que ñu jàpp si pour mu mun a tirer leen vers le mhm. mais su fekkee amul champion aussi tamit bon c' est dafay dafay difficile yaa ngi wax problème mu problème mu budget problème mu financement mais est ce yéen aussi tamit vous vous battez assez. Euh, si seen côté ba nga xamante ne euh, doo leen nekk di crier à gauche à droite pour ne pour ne da ngeen da ngeen da ngeen bëgg ay moyens est-ce que bon ça c'est la première question sànq dégg naa la nga ne da préparé ju euh, comment Euh, voilà JO yi nga yi nga xam ne 2026 lay am mais entre temps y a les y a les JO de 2024 oh bon euh, est-ce que c'est est-ce que pas benn manque ambition le fait que ngay dem 2026 alors que 2024 normalement su fekkoon lépp jaar na waroon nañoo am benn représentant sax au moins euh, à Paris boo xamante ne peut-être dina def fierté Sénégal est-ce que côté boobu bon loolu mooy ñaari question yi ah, benn bi moom mooy si est-ce que vous vous assez de votre côté pour que am ay financement autonome par rapport ak ministre parce que yaa ngi wax pour man c'est mal c'est malheureux de le dire comme ça nga ne ministre bi def na vacance bu fekkee vacance ministère bi am na vacance yéen mënoo leen seen activité pour man bon y a a problème quelque part deuxième bi moom mooy bon lu lu wax parce que nga dem ba 2026 euh, alors que 2024 est là et puis pour moi bon c'est beaucoup plus important. waxuma ni ministre dafa dem vacance déroulé wuñu. Hmm? waxuma ministre dafa dem vacance. moo tax dëgg man maa wax def man maa wax. oui donc dama bëgg pour ñuy déglu. ah dama ni euh, le fait que ñu bañ a ministère. Mhm. loolu sax benn aspect la. Mhm. parce que mun nga bañ a nekk ministre mais lu ministère était là-bas. mais loolu mooy vacance loolu loolu laay wax. oui je veux dire le ministre l' administration continuer. Mhm. bien sûr quand même parce que y a finance. bon je ne suis pas dans les secrets du ministère. des sports. donc te toutes les fédérations on sentit ça. peut-être yow vous n'êtes pas euh, déglu naa léegi xam naa ni ci vous êtes plus versé dans la politique. mais xam nga politique moom politique li ñuy wax politique du du biir dafay tëb bësin politique mais loolu amul sa sport. Mhm. sport da ngay yaa un processus ngay commencer xale ah, ñu lay tàggat. ba nga nekk champion. Mhm. le champion ne se crée nous sommes en train de travailler pour dans les années à venir. Mhm. fii ak ñetti at ñetti at ñu am ay champion amoon nañ am nañ champion ci biir Afrique biir zone bi. waaw ku gagné woon ku gagné woon Égypte euh, comment ça s'appelle Nestor euh, Nestor. encore que euh, oui Nestor Nestor c'est la révélation de cette année. Mhm. mais avant Nestor y a Maodo Ndoye Diop et Anta Ndiaye qui ont glané des médailles d'or mhm. en Afrique dans la dans la catégorie groupe d'âge parce que soo duggee ci élite bi c'est l'Afrique du Sud loolu ñëpp ci yemale à part Afrique du nga xam ne ñoom jóge nañ gis nga rugby bi rugby bi kay seen africain yi yaa que l'Afrique du Sud c'est la même chose pour le triathlon d'accord allez-y oui le plus grand problème c'est les moyens mais c'est les infrastructures mm-hmm. moo gën a jafe ci triathlon ñun Dakar ren defuñ fi benn triathlon parce que lañuy sonn pour ñu mën a organiser triathlon fii. Mhm. c'est-à-dire comme ni nga ko Aïcha waxee léegi da ngay fii jël vélo jël jël daw après daw. Mhm. mais dafa am enchaînement c'est-à-dire fii bi géej gi moom yaatu na mais dawal velo bi mooy problème. Mhm. parce que il faut mu am circuit boo xam ni waaw dafay am circuit entre géej gi ak ak ak circuit velo bi dafa am transition yow mënoo def fii euh, Guéfey dem ba dem ba euh, stade Léopold nga def fi non. parce que dafa am règlement. Mhm. loolu moo tax il faut des infrastructures. loolu moo tax mais est que mën nañu wax ne sinon Sénégal parewul pour. Euh, am genre discipline sportive yooyu sinon. non ngi ko am xam nga sénégalais nekk fi di ko def. parce que par exemple exemple ma jox benn exemple bu fekkoon da nga bëgg a def baseball fii Sénégal. boo wala wala rugby par exemple su de des des parce que amul aire de jeu boo xamante ne bu lay permettre nga nga def ko. nous sommes depuis 2013 ñu ngi def terre longue depuis 2013 et puis les Sénégalais qui font le terre longue c'est des citoyens. d'accord dinañ ci ñëwaat. dinañ ci ñëwaat ñu dem ci. oui bien sûr. dinañ ci ñëwaat ñu dem ci Jamaïcain le 24 décembre incha allah euh, nga organiser journée bu am solo. Bombardier ak Reug Reug war a tase en tant que jeune promoteur bëggoon naa xam naka nga def ba mën a décrocher vraiment collaboration bi waaw maa lay ziar di am mbégte ci jàkkaarloo bi question bi ma posé nag tontu ci dina ma neex trop ndax xaj na depuis 2015 ba léegi promoteur de lutte la maa ngi organiser chaque année ay événements yu mag. li sama koy wax xaj na am na benn moment ñu pause làmb ji fii jamono Covid bi. Mhm. tëj tëj sport yëpp ne sport du am man moment boobu sax dama doon tëgg làmb ndax bi ñu tëjee fii damay jël fii ay mbër yóbbu leen bi ñu fay bëre kon musuma ne balance si ci làmb. Mhm. waaw ñun nag lépp loo nekk war nga ci am benn expérience te soo gisee ñu décroché Bombardier ak Reug Reug bu njëkk. Sénégal yëpp wala àdduna bi boog dañ gëm ne xale yi danga war a dem ci làmb rek seetaan. Mhm. mu jeex nga dem ñibbi. ñun bi ñu ñëw ci làmb supporter mbër lañu commencé ma gëm ne lépp lu mag di def xale war na ko mën a def ñëw commencé tëgg làmb làmb nag boo ci duggee dafa am fu ñu lay catégoriser promoteurs yu mag ak promoteurs yu ndaw ma ne ma ne ah comme man maa njëkk a nekk xale bu am at yi ma am. di tëgg làmb. ñaata nga am. vingt six ans vingt sept ans. ok ma ne maa njëkk am. maa jeune maa njëkk a nekk xale buy tëgg làmb. léegi tamit damay fexe dugg ci cour des grands ni ñu koy waxee daj ci porte yi. waaw doon xale boo xam ne tamit maay doon xale buy njëkk a tëgg combat bu mag comme ngeen ko tuddee waxuma sax combat mag waaye combat international ndax. tey Reug Reug ak Bombardier bokk nañ ci mbër yi nga xam ne fii ci Sénégal. Mhm. ñoom lañ gën a reconnaître ci àdduna bi. koo ci dugal vidéo am YouTube ay million mbëri bu koy am bariwul loolu nag soo gisee MMA bi ñuy pratiquer moo tax. Mhm. bu demee ba Reug Reug gagné benn champion du monde sept fois muy Boucher Sa loolu du du du lu ndaw waaw yàlla def ma décroché combat bi depuis mois de juin saison bi tëj ñu war ko organiser le vingt quatre décembre. loolu nag liñ ciy jàngale dafa bari ndax jamono ñun biñ koy def. Mhm. dafa bari ndaw ñu bari yu perte espoir fii ci Afrique saxlaa laa du ma ne Sénégal kese waaye Sénégal bokk na ci dëkk yi ñu ci gën a ràññee lu tax mooy amuñu ci lu ñu jàpp soutenir bu ñu leen war a soutenir des na loolu soo nekkee ci biti nii di dox doo ko comprendre balaa ngaa comprendre lan moo tax ndaw ñu bari perte espoir da dugg ci liggéey wala ngay dugg ci act yoo xam ne. xam nga da nga ci ñëw pour jàngale wala ngay góorgóorlu si ngay door a comprendre lan mooy problème bi c'est maa ngi dégg suñu papa ji mu ngi wax um, ci affaire sport ne télé yi xaj na tele yi wala presse bu bari bi ñun mook wala man ay coono la ñuy indil ndax tey mënuñu décrocher combat bu toll nii rëg-rëg bombardier parce que six mois ak budget bi ñu ci def ak événement bu toll noonu du sax liggéey moom liggéey la rek bon ak âge yu ñu am bu ñu ñëwee def loolu dañu war a gunge jàppale ñu bon bépp société nationale bu nekk ci dëkk bi ak euh, direction yi nga xam ne direction état la foo ci dem am nañ budget communication boo xam ne dañ ko war a jël delluwaat ko ci sport bi fépp jaar nañ fa amuñu kenn. ndax dafa am ñu nekk sa ginnaaw. non moom fii àdduna ñëpp a nekk seen ginnaaw man dama gëm ne borom mbaar mi moo nekk sama ginnaaw ki nekk ci ginnaaw ñëpp muy suñu borom chaque jour dama koy wax nit ki lépp loo gëm. am ci fulla ak fayda da nga ci war a yegg fu kawe man gëm-gëm boobu laa am noonu laay doxee dugguma ci dara pour ñëw di jouer second rôle dama ñëw du dugg dama ciy bëgg a nekk leader. Mm-hmm. waaw ba affaire comme am na ku nekk sama ginnaaw moom ah kanaa borom baar mi yàlla moo nekk ci ginnaaw ñëpp. jamono yi kanam. ma la déggee tey soxla nga quelque part une visibilité ni nga koy waxee. Mm-hmm. mais est-ce de communication. seen ciblage par rapport ak yenn médias yi pour def la communication tamit est-ce que nekkul li nga xam ne quelque part moo leen di suuxal loolu benn la par rapport ak tey image bi nga bëgg ak promotion bi nga soxla ci combat bi mm-hmm. ñaareel bi moom mooy euh, sa diggante ak bombardier mm-hmm. bëggoon naa tamit nga ñëwaat ci parce que aussi décrocher un combat de de cette envergure là mm-hmm. ce n'est pas euh, c'est pas facile donc Bombardier tey maa ngi ko dégg mu naan bu mu weesoo rek rek am na beneen xale boo xam ne bëgg naa ko may chance te apparemment njëkkoon nañu démarché ku ci mel ni Sa Thiès demul woon sa digganteeg Bombardier ak ci biir combat bi tey on parle d'un certain partenariat wala boog d'un possible partenariat entre yéen ñaar. non non am ne amul nekkuñ benn ay partenaire nekkuñ partenaire comme ci liggéey ma fay ko mu bëreel ma. wax dëgg yàlla yow dëkk Bombardier non non dëkk parce que laa dëkk wax dëgg man Modou Lo mooy sama moom laa doon fréquenté moom laa doon. si si loolu que moo taxoon ma ne ko il est mhm. passé de de de supporter à promoteur. voilà waaw comprendre mhm. Bombardier wax dëgg yàlla dafa nekk koo xam ne modèle la ci li mu nekk maanaam moom mbuur lay jógee ñëw dakaar ba doon fi champion te ñu bëri gëmuñ ne da nga war a jógee ci biti ñëw doon fi champion ñu bari bu ñu jógee seen dëkk yi dañuy ñëw bokk fii ci écurie moom mu am gëm-gëm ne mbuur gi mu dëkk lay jógee ñëw doon champion tuddee boppam guddi guddi mbuur. fexe ba def fi lu fi benn mbër deful nekk fi roi des arènes de fois dem fi moo njëkk mooy mbër mi njëkk a bëri Bercy ba pare mooy mbër mi njëkk a dugg ci MMA kon Bombardier modèle la sport Sénégal. Mm-hmm. mais diggante. sunu diggante mooy li ma lan moo tax ma tëgg ko mooy man dama jàpp ne nit ki lépp loo nekk da ci war a marqué sa empreinte te Bombardier mu bëre ba bàyyi bëre te tëgguma ko man dama jàpp ne. du doon palmarès bu rafet ci man ndax li ko des ci làmb bariwul te bëgg nañ suba bu ñuy wax ci mbër yi nga xam ne jaar nañ fi ñu tëgg leen moom mu bokk ci. Hmm. moom nag bi ma ko tëggee tey su ma yemoon fii ci làmb man jàpp naa ne am naa palmarès boo xam ne ba àdduna du ma doon lu may fàtte. bii nag mooy sa premier affiche bu ndax comme affiche bu toll nii bii mooy sama première affiche bu mag waaye Bombardier day bëreek Modou quatre ans ci ginnaaw cinq ans maa ngi ci kaw tribune bi nekk supporter di jooy tey ñu dawal benn cinq ans moo war ko tëggal làmb di ko bëreloo man loolu laa jàpp ne défi bu rëy la ci man loolu bokk na ci lu tax ma décroché ko ba pare man damay tëgg fii làmb di tëgg làmb ay gambi ci yeneen dëkk yi promoteur international jamono ji suñ koy wax mënuñ ma ci génnee kon day jaaduma boole ñaari litre international mm-hmm. fay naa ko kase contrat yu leer mu bëril ma boo demee CNG li kaam fa amuñu benn partenariat boo xam ne mën ak moom dañ ko seex seeq dul waaw non cachet bi nag mënu ma ñëw fii ci biti di wax salaire jàmbur <laughs> ngi mel yow sa salaire <laughs> euh, bon euh, dégg naa mu wax ne bon si affaire li nga wax communication ko dañ leen di jàppale oh yooyu moom foofu d'accord ma parce que. non waxuma ci communication. non da nga ne budget da nga ne ministère yi ak agence yi fu ne bu nekk am na su budget de communication ñoom dañ ci war a jàpp loolu nga wax noonu. waaw mais tamit yow. da ngay da ngay da ngay tëgg sa combat pour gagner de l'argent. waaw mais comment ça se fait ñoom ñuy dugal seen xaalis gratuitement foo xamante ne yow après yow yaa ci tiré bénéfice. non kanaa xamoo espoir ku am budget de communication kay. budget boobu da nga ko war a def ci lu lay indil lu lay indil pip. te même. je suis d' accord loolu ah loolu laa comprendre. loolu loolu expliqué dama ne. Euh, euh, non man tëjuluma benn télé sama zone. ciblé même. ciblé wu kenn. am na parce que des fois pour avoir. ak l'accréditation dañ lay wax carrément ne. ñi ñoo yor euh, la la la la nga xam moom ba jëm ci organisation. des fois da ngay ñëw sax ba ci biir géew gi on te dit. Euh, télé nangam moo organisé ñoom ñooy xool géew bi fu leen neex la ñuy toogee yéen dañ leen di parquer des fois. non loolu sport yëpp ci àdduna la am même coupe du monde bi bii nii boo demee am na presse yoo xam ne ñoo yor exclusivité bi soo ko bëggee seetaan foofu ngay dem ñu jox la signal. Mhm. mais man mi bëgg tey couvrir. ma ñëw rek am sama accréditation. waaw ma ñëw tey yor badge bi nga xam ne par exemple samay mbokk TFM yi nga xam ne ñoom ñoo am exclusivité def direct. même badge bi lañ yor ma ñëw ba ci biir géew gi ñoom ñu baleen ñuy taxawal nu mu leen neex ci biir géew ñun ñu teg ñu ci benn barrière fële. ana responsabilité promoteur foofu noonu. tontu naa la sànq dama ne la sport yëpp ci àdduna noonu lay demee. Mm. boo fi jógee woon tey nga dem participer ci CAN wala coupe du monde boo demee moom même boo nekkee presse dafa am fooy yem man tëjaluma kenn sama buntu dama gëm ne liggéey bi gagnant gagnant la. su ma nekkee ci projet da nga ciy jàpp dugal ci sa loxo jàppale ma ci suuru làmb boo ñëwee ma jox la accréditation yow tamit nga liggéey yóbbu sa kër. ba tey boo ñëwee nit ki yor événement am nga toog di ko seetaan même boo ñëwee jouru làmb ma am ker sa dàq la wala ma xool relation bu rafet ba jox la accréditation mm. nga dugg di ci liggéey man jàpp naa ne loolu boo nekkee boo nekkee góor dëgg sax war nga ko. fi ma la bëgg a interpeller mais man question bu bon. fi ma la bëgg a interpeller mm. ministre des sports Lat Diop. Mm. dama ko dégg mu wax désormais euh, pour ngeen organiser ay ay ay lamb ci arène nationale da ngeen di fay. yow loolu naka nga ko gisee. waaw man bokk naa ci ñu njëkk a ne dañu war a fay. il faut ñun ñi tamit di bàyyi xel ñàkk fay bi lan moo ko waral ñun dañ doon fay arène bi ñëpp xam nañ ne Covid ñëw fi dugg ci réew mi état débloqué 1000 milliards suma juumul sport yi nekk ci dëkk bi yëpp ñu jël budget jox leen ba ci waykat yeeg ñëpp ñi ay 5 milliards ñi 2 milliards ñi 3 milliards joxuñu làmb dara te ñun yaakaar naa ne. ay privé lañ ñoo xam dañ jël suñu alal dugal ko ci dagg suñu licence jox ko ay mbër bi ñuy arrêté sport yi man fekk naa parce sama quinze millions mu ngi ci biti toog naa un na deux ans mënu ma ci jot te kenn jàppale wuñu ministre de sport bi fi nekkoon muy Matar Ba ñu ngi koy nuyu d'abord si la jóg ne bi coow li naree jóg mu ne léegi amul problème comme jàppalewuñu leen dinañ jël arène nationale bi. jàppale leen ko bu ngeen di tëgg ñu teggi leen yenn sars yi du ngeen ko fay. nii la affaire bi demee waaye man lu ma jàpp. Mhm. man ma jamono boobu ma fay arène bi moo ma gënal ma bañ a fay arène bi moo tax keroog bi laa jom ñëwee man maa njëkk accepté amul benn promoteur bu ne ci réew mi bu war a génn ci presse àdduna di la dégg nga naan dañ ma fayloo stade pare wu ma pour fay ko liggéeykat dëgg ak jàmbaar war nga bañ a war nga rus loolu ku ko dégg du la ci naw waaye nag am nañu sañ-sañ ñun ñu ne balaa ñu ñoo fayloo nit ki boo koy luyee appartement sax da nga koy defar ba mu yemb nga door ko ko fayloo si laa leen boo wax benn question ne leen stade bi man remarqué vingt 24 portes la benn du tëju porte yi benn baaxul 24 portes mur bi nii na tollu ku am un an da koy tëb. waa léegi ñu defaral ñu porte yi ba mu normal. muy tëju muy tëju. na porte yi di tëju. waaw hmm. nga defar mur bi ba mu mat 2 mètres wala 2 mètres 50. ñu yëkkati ko ñu yëkkati ko. man loolu su amee loo ma fayee ko ma fay ko ndax man chaque événement dinaa jël cent person cent personnes yoo xam ne ku ci nekk bu làmb ji jeexee boo ko fay dix mille da koy xeeb. Ah. te ba pare teewul xale yi dañuy tëb di dugg ñi ngay jël noonu pour ñu lay liggéeyal ñenn ñi sax dañuy encaisser ay nit pour bàyyi leen ñu dugg léegi. très rapidement bon une question très simple. Euh, parce que gis naa ni je la sànq dama ko bëggoon dama ko bëggoon encourager et boo bon féliciter la euh, surtout Bombardier bu bu nga ko woowee ne ko nan nga ko waxee da nga ko woo téléphone ne ko dama laa dama laa bëgg dama laa bëgg a tëgg làmb boobu reetaanu lan la lan la la wax. non est-ce que mën nga ñu expliquer. non Bombardier du reetaan ndax moom xam na ma man du Bombardier bi di wax naa la ne la man Bombardier amatul lu ma ci kii avant may tëgg Bombardier dama jëlee fii événement muy Baye Mandione ak roi des arènes yóbbu ko Gambie stade 45000 places ma feesal ko tepp àdduna yëpp toog di ko seetaan jël fii télé privé yóbbu ko mu defal ma 9 heures de temps direct kon kooku ku xam sport wala ku xam làmb da ngay xam ne kii amatul. Mhm. lu muy prouvé te Gambie amul mbër bu ñu jëlewul Sénégal yóbbu la fa pour nga bëree fa Mohamed Ndao Tyson bëree ñoom Père Mar Fadam yàlla na ko yàlla yërëm ñëpp bëree fa. Mhm. amul benn sport bu mu sa feesal stade Gambie bu dul football équipe nationale ma ñëw feesal ko ci làmb ci benn mbër boo xam ne dëkkul ci réew mi. kooku amul lu muy prouver dëgg naa fi franc bébé Saloum ay tamit ñu ngi ci làmb ji di suivre kenn ku nekk xam nañ lu mu mën. mais naka nga décroché Bombardier Pape posé na la ni ma ko décroché mooy comme ni ma yàgg a décroché yeneen bëri yëpp woo naa ko am na staff bëgg naa organiser sa combat ñu waxtaan si mu ne ma ñaari booy daa pare pour bëreek Sa Thiès wala Reug Reug Sa Thiès côté am mu xaw a difficile ma décroché Reug Reug. amuloo réserve boo ma jël. non non amul benn doute ban doute la. comme man mun naa ko tëgg. Euh, bon je ne sais pas si organisation combat bi mu jaar yoon affaire yooyu. non non man bi ma tëggee Bombardier premier jour may signé contrat bi dama ne Bombardier bis bu ma ko tëggee ba pare dina xam ne bépp promoteur bu ko mës a tëgg joxoo ko ci respecté woo ko. yaa ngi tendance ñeneen ñi. non ma kenn ba pare ma ne nañ ma yokkal stade bi. Ah. man dinaa réussir ci Bombardier lu nit musu réussir <laughs> ndax ñëpp dañ ne Bombardier. alors <laughs> Pape Grégoire promoteur yu mag yi am ngeen problème de <laughs> Jamaïcain mii ci père laa bëgg a parce que euh, triathlon la ñu wax vous avez un boo xam ne yéen a ngi koy waaj mhm. mais ak li nga xam moom mooy euh, euh, les les les faits yi ngeen di feek ci terrain bi du ngeen mën a def triathlon mais biathlon ngeen di def finalement léegi pour remplacer tey cette troisième activité là vous avez prévu de faire quoi non duathlon remplace wuñ ko c'est-à-dire dans la fédération de thé internationale de triathlon mm-hmm. dafa am ñett triathlon duathlon ak donc le duathlon cette année il y a eu euh, Amadou bi muy wax mm-hmm. il a eu une médaille de bronze dans le duathlon dans le championnat d'Afrique de duathlon organisé à Sharm mm-hmm. donc le duathlon waaw le duathlon remplacé wul Mm-hmm. c'est c'est c'est que dëkk yi amul dëkk yi amul euh, fu ñu fee amul géej amul piscine bu ñu mën a fee tu fais de biathlon là-bas c'est comme dëkk yi nga xam ni da ngay dem amul condition pour dawal pour daw on fait l'aquathlon mm-hmm. on fait natation et course à pied mais la course de Louga c'est biathlon c'est cinq kilomètres à pied mm-hmm. soo ñëwee nga jël vélo bi le même athlète qui mhm. prend le vélo, qui fait 20 kilomètres, parce que c'est la distance standard. Là-bas, à Chametière, du modèle, ils ont fait 10 kilomètres à pied, 40 kilomètres vélo, kilomètres pied. Mais, mais nous, on fait la petite distance à Louga, 5 km pied, 20 km vélo et 2,5 km encore à pied. Mhm. C'est ça qui, le temps qui est prévu et c'est dans c'est une compétition olympique officielle mm-hmm. donc euh, mais na nga dindi per bi parce que man ma wóor la <laughs> loolu la koy mais man dama dama dama dama gis ni que tey euh, pour que seen discipline bi gën a am doole il faut que ngeen am des moyens aujourd'hui sans que seen njëlbeenu kàddu maa ngi la maa ngi la dégg ngay wax naan euh, ay fédération yu ndaw yu mel ni ñun pourquoi fédération bu ndaw aujourd'hui qu'est-ce qu'il faut faire pour que seen fédération bi gën a gën a taxaw financièrement mais du du man kooku yéen ko wax journaliste ñoo koy wax. Hmm. on dit les petites fédérations. c'est à part fii football. ah mais journaliste warul non ah? non parce que y a 47 fédérations au Sénégal sur les 47 y a que cinq est-ce que ñëpp yéen a ngi respecté les cahiers de charge. demande au ministère des Sports. mais c'est a vous aussi d'éclairer. quand aussi vous restez dans votre coin lu di xaar compétition aussi c'est moi je ne me vante pas. Mhm. mais bu waxal moo nekk président fédération triathlon je n'ai pas commencé par le triathlon mhm. j'ai commencé par le football mhm. et Dieu merci j'ai fait mes preuves au football mhm. man c'est au moment où je voulais prendre ma retraite pour me consacrer à mes affaires personnelles qu'un des ministres qui était là Mbagnick Kianami m'a demandé parce qu'on voulait lancer le triathlon au Sénégal c'est ce qui m'a revenir dans, dans les affaires mais man personnellement euh, so sama sonn parce que suma sama at sama at hmm. xam naa ni léegi moo def ñeenti fukki at yoo xam ni ci moment social xam nga loolu nag du du loolu du dund hmm. tu besoin nag des fois nga dem topp la say ji fi bokk mais mais finalement est-ce que vous n'êtes pas victime de votre de l'impopularité de votre sport c'est-à-dire que sport bi on on on le connaît au Sénégal. mais ah. tu es négatif. non mais négatif moo dama dama essayer objectif rek. <laughs> on n'est pas impopulaire. ah bon non. parce que nous sommes non ñun 2013 lañ commencé. mais même foot même foot ligue bi sax euh, local bi sax c'est impopulaire. ah non. c'est relatif. Ah, non encore c'est. non mais si. relatif. c'est relatif ce mais, ça mais, dépend ah, de ce qui parle. Les, les, gens ils maîtrisent beaucoup plus le championnat européen que le championnat local. Oui, oui ça c'est le Sénégalais. C'est pas normal ça. Si. parce non, que aussi euh, aspect marketing. mais loolu du impopularité. bul ko impopularité c'est ça. alors ñu bàyyi la nga àggale li kii doon wax sànq la. Mhm. c'est-à-dire mu ngi nekk ci politique média c'est-à-dire les les championnats européens ils ont des programmes médias. très fort yoo xam ni dañu agressé sax les les programmes nationaux mais au Sénégal je crois que quand loo mun a wax y a des progrès les gens accompagnent le championnat national. Mhm. xam nga nag loolu suñu ci bëggee d'accord kenn du ci xaalis mais bu fekkee ni cette TV dafa nekk yu nekk privé. wala fay wala fay ay agent wala wala di fay courant xam nga mënoo ko wax ni. Mhm. ñëwul accompagner. Mhm. ah gratuitement. d'accord mm. Jamaïcain le 24 décembre incha allah lan ngay apporter comme innovation. waa le 24 moom comme ni may wax rek. ndax lamb fii daal mel ni gré gis nañ lu ne de. non Eric Fall def na mm. Mm. waaw lan nga mën a apporter comme innovation. innovation bi may indi mooy gis ngeen lu ne ci lamb waaye kenn mësul tëgg ba mbër jee tëj stade bi man loolu mooy sama innovation. kenn mësul tëgg bombardier stade bi fees tepp. mais mais kii li nga dugal mais mais bul wax loolu. Ah li nga dugal kii euh, comment s'appelle. bul ma tuddal benn promoteur dama ne la. waaw tuddul ma promoteur ok. voilà <laughs> pour pourquoi nga boo bëggoon sax ma tudd. image ya non non boo tuddee tur nit ma citer wax sànni. nga bëgg a teg ok ko nga dugal dama ne la. kenn musul tëgg bombardier. mais mo mais Modou Lo bombardier c'était plein. non Lo fees la côté ma ne ah bon image yaa ngi fi kay wax. sérieusement non mais c'était plein. man combat bi dama ne man ci télé laay waxee lu muy indi ci innovation. loolu kese ci kenn mësul tëgg Bombardier stade du fees. su feesu dinaa la baar. dinaa non mais yow yaa <laughs> xam nga yow comme nga et tout mais on on considère mën naa la wax Bombardier Modou Lo c'était plein Tyson. Euh, la la pas la première fois. Tyson non Tyson Bombardier la première fois. il faut li ma li ma lay wax. la xam naa ne man maa euh, li ma lay wax ni man du arène kii li muy wax ni man maa ko gën a maîtriser. dama ne la non ah, bàyyi ma lu tax ma wax la maa la gën a maîtriser ndax si laa yëngatu. <laughs> dama ne la mais ça pas dire que si nga yëngatu ñu xam déglu ma man man lu leer laa wax si télé laay waxee mënoo mënoo teggi samay wax. <laughs> Bombardier ku ko mës a tëgg. adversaire am mun na feesal côté bi ñu koy jox. mais moom côté du fees. ba côté Bombardier du fees loolu mënoo ko dindi. mais Tyson Bombardier c'est côté boobu feesul. mooy bu koy Bombardier di wax waxu euh, du waxu euh, kese concrètement ah. lan lan la jamaïcain di indi en terme d'innovation parce que aussi nee naa la sànq li ñu gis ci Eric Favre en terme de spectacle jamais mosuñ ko gis ci làmbu Sénégal. waaw. Ah. yaa ngi wax man man dinaa indi lu ay faveur indiwul xam nga tey. Hmm. bu la 24 yàlla na yàlla defal jàmm nga ñëw stade. dama ne la man suur boobu lu ma def innovation la dama ne bi nga nekkee ci réew mi ba léegi. musoo gis jeune bi am at yu ñu am naan day tëgg làmb ci Afrique sax laay wax. kon loolu innovation la. Hmm. tey ñun suñu demee ba décroché bombardier àdduna bi yëpp naan munuñ ko du yegg ak du yegg. Hmm. dina yegg ñu sant si yàlla ba yegg si fii ñu ne deux jours moo ci des. dimanche ku ñëw gis public bi ñëw Bombardier ñëw dugg si rëg-rëg ñëw dugg si arbitre soufflé loolu innovation gënu ko rëy ci àdduna te di ngeen gis ci stade bi tamit du ngeen mosul gis ci làmb. loolu est-ce que da ngay travailler ñeneen ñoo xamante ne ils sont à l'étranger wala équipe bi yëpp équipe sénégalo sénégalaise la. ñëpp fi lañ nekk. ci réew mi lay nekk ay xale lañ sànq. alors on termine rapidement. waaw ah, père bëgg naa nga ñëw parce que JOJ la ñu wax aussi. Mm-hmm. et que c'est très important ñuy ñuy wax ci discipline yu mel nii parce que aussi euh, beaucoup de sénégalais dinañ ci gën a intéressé wu. donc sur le plan de la détection tey quelles sont les zones cibles yi ngeen xam ne jam ngeen ko mais aussi euh, lan en terme de de de de préparation par rapport au club pour gën leen a gunge aussi. waaw euh, pour des raisons yi en tout cas ñu ngi def jeunes yi on a appelé dans toutes les régions. xale boo am capacité fii même àdduna bi ñu ngi koy wër parce que léegi CNF moo xew. Euh, xaw ma CNF nu ñu koy tuddee léegi foog mën a gis sénégalais. on cherche parmi les Sénégalais qui qui participent dans les championnats du monde. Mm -hmm. peut-être ñu gis xale bu raar euh, donc on a organisé quatre camps d'entraînement pour des compétitions au moins une six compétitions et à Louga aussi yo y aura une compétition de jeunes. ya y a des mm-hmm. jeunes. il y a la semaine prochaine. oui la am na ñu génn ci loo bi vraiment am nañu yaakaar surtout am na jigéen. bëgguñu ko catu xale la. macha ah, waaw ñu ngi koy. am ñu woon kii Dakar Gorée bi wala moom traversé bi. su xale bi waaw. j'ai pas suivi. j'ai oublié son nom mais elle est elle est brillante. moom traversé Dakar bi moo moo jëloon si euh, catégorie jeune bi moo jëloon première. moom fekk moom fekk mu Sénégal la. ok d'accord bon mais. Mhm. mais donc ci góor ñi am nañ mais vraiment là suñu espoir ci kii euh, may ma rek. ma waaw pour bi parce que quand même. dama bëgg wax ni compétition la bi mhm. dañ ko parrainé cette année kenn même dañ ko parrainé ñett nit ñu nekk biir Louga mhm. Maguette Diouf ak David Diagne ak Babacar Sarr parce que loolu dañ ko def en rapport c'est vrai man Louga laa dëkk mhm. mais dëkk bu ñuy dem parce que le triathlon chaque année sort contrairement à ce que Pape Malick ne je pense que je vais prendre ses pour l'informer régulièrement de nos activités chaque année ñun on organise au moins dans deux villes au Sénégal obligatoirement. c'est bien. chaque donc on a été à cette année euh, Pointe parce que on devait aller au Cap mm. le 25 passé. Euh, donc je dis Maguette Diouf et Dabi Diagne pour ce qu'ils ont fait. pour le sport. Baba Babacar Sarr ah. Maguette seen diggante ñaar c'est c'est assez spécial. oui Maguette Diouf c'est mon patron. il demande mon patron. je le connais je bien c'est un homme qui aime la culture et tout et puis. parce que parce que mhm. la compétition de Aïcha. la compétition de le organise on l'organise en partenariat avec le FESPOP. le FESPOP c'est le festival international de folklore. qui démarre le 28 à Louga. Mm -hmm. Et nous avons dit, on a signé une convention pour que désormais, mm -hmm. chaque mois de décembre, on fait une compétition triathlon pendant le festival. Et à part de, à part de l'année prochaine, la compétition sera internationale. Et c'est bien aussi ngeen dem ci région yi nga xamante ni mosoo leen fa dem. tamit ça à Louga on a été à saint euh, ce qui reste c'est Fatick Kaolack. d'accord merci euh, ci lan ngay jeexale. waa li may jeexalee rek mooy di wax ne. mais mën naa poser benn question. mais da ngay prôné Sénégal Sénégal boo ñu ngi liggéey ay sénégalais ngay tëgg Copa Sénégal mais pourquoi ngay choisir turu jamaïcain pourquoi euh, gardewoo turu sénégalais. turu sénégalais man Sénégal lañ ma tuddee. jamaïcain bi foo nga déglu ma. man Mouhamadul Mahdi lañ ma tuddee. mais pourquoi gardewoo tur boobu Mouhamadul Mahdi production jubul jubul. jamaïcain bi surnom la bi ma ñëwee am sama structure tuddee ko jam production gis naa fi ay. après nga def jamaïcain quoi. jam production non déggoo li ma. jam jamaïcain bi surnom la dafa yàgg moo jiitu promoteur bi. fi may mujjee mooy comme li may wax rek. Euh, ñun ay xale lañ ñu ne ci dëkk bi tey dañu waroon a taxaw di laaj xëy laajuñu ko ñuy fexe di liggéeyloo suñuy morom journée bu ñu tëgg vingt personnes ñoo ciy bëree chaque année boo defee cinq journée liggéeyloo nga cent personnes. dañuy naan nag état bi. Mm. ñu gungee ñu soutenir ñu mooy si seen budget communication yu ñu yor ñu jàppale ñu ci di ñuy sponsoriser ndax jamono bi gis ngeen phénomène bu jóg. Mm. suñuy moram rek ñooy jël ay gaal di dem bitim réew ñii di ñàkk seen bakkan ci yoon bi union européenne ak africain yi union africain di ci ñàkk ay su ñu bëggee mbëkk mi jeex. nañu jël ci ndaw ñi nangoo liggéey nekk ci dëkk bi ñu jël ci ñoom exemple tey kenn mënul xeex immigration clandestine génn ñu ci dañ ne daan ndaw ñi nañ toog di liggéey ndaw a ngi nii toog di def lu benn ndaw musul def ci Afrique kon kooku bu dugalee ay demande sponsoring dafa jaadu ci budget yooyu ñu yor ñu jàppale leen ci ndax événement yu toll nii nga tëgg ko amoo benn sponsor loolu <laughs> loolu encouragé wul ndaw bi liggéey bis weesu man naa tëgg sax leneen loolu loolu. jërëjëf merci beaucoup. waaw <laughs> Jamaïcain merci en tout cas euh, man je suis fière de voir un jeune. ah de ton euh, di di réaliser yenn yi. Euh, moo tax bi la Pape laajee ban age nga am moi j'étais très fière donc juste pour dire que euh, nit ki de nekk kilifa. wala boog nekk leader du ci âge. ci gëm-gëm la ci bëgg-bëgg la ci passion la ci volonté la ci abnégation la man ci loolu laa ko jàpp donc mu ngi souhaiter une très bonne chance yàlla bu la cat dugg. yàlla na la yàlla bàyyi nga àggale ak sa sago. Ah, tonton Boubacar merci beaucoup. Merci. nous de passer une très belle journée. ah merci jërëjëf merci. <laughs> <laughs>